mbokki internet sa safoo teewlu info 2S TV dal leen ak jàmm ci xibaar ñu wax ci lu soxal ay kàddu ki di Aminata Touré di ah, Mimi mu yëkkati ko nag jëmale ko ci candidature bu Ousmane Sonko gannaaw nag bu ñu fësalee ne boobule eh, candidature moom ah, invalide la ñu ko xamle ndax ay dossier yamoo déposé nag matut loole nag bu ñu sukkandikoo ci Aminata Touré moom nag ma ngay xamle ne loolee jaarale wu ñu ko ci yoon ngir faagaagal ko képp moo tax ñu daal di ko amal. ate nee na nag yoon sakku woon na ñaari yoon ngir rek ñu delloowaat ko ci liste électorale yi mu xam le ne nag moom Aminata eh, Touré nee na képp koo xam ne démocratie eh, ñor na la nag dangaa waroon jóg eh, taxaw temb rek ngir xeex wàll wi nu mel ndax fii ci réewum Sénégal nekkul loo xam ne nag dañ fiy nemmeeku wàllum démocratie Sénégal nag ñu gis ne état bu Sénégal ma ngay salfaañe ak ak yelleef ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko tax rek ñu daal di jël candidature am di koy invalidé ngir mu bañ a bokk ci élection palum njiitum réew yi ñu euh, la mu nekkoon ay kàddu yoo xam ne Aminata Touré mi mi di yëkkati na ko nag jëmale ko euh, ci candidature bu Ousmane Sonko wéyandi xibaar yi wax ci leneen euh, ci juróomi marine juróomi nit yoo xam ne ñu ngi bokk ci marine nationale ñoom nag ñoom ñoo daal di disparaître ne mëy yi nag kenn gisu leen loole nag niki aljuma la xew doon yemoo juróomi juróomi fan ci weeru janvier atum 2024 ñu bokk nag ci marine nationale gannaaw ab patrouille boo xam ne ñu ngi ko doon amal ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum drogue loolee nag gannaaw bu ñu amalee boobule patrouille nag ci biir géej gi la ñu gis ne def nañu mër kenn gisu leen kenn déggu leen mu nekk nag ab communiqué boo xam ne nag jóge na ci marine nationale ñu koy xamle di leen di jaajëfal bu baax te di leen di wax ngeen abonné ci suñu chaîne info Vous regardez Info 2 ds la chaîne du peuple. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de vous liker et surtout de vous partager. Merci.